ki nga tànn ñoom ñëpp ñu accepté ko nee na loolu lañ ko wax ñu ñëw tànneef jot ñu tànn nee na tànneef jot ñu tànn bi ma xaymaa xool nee na bi mu xaymaa xool ku nekk am na cër nee ku nekk am na cër ku nekk am na mérite ku boo boolee critères yi boo boolee critères yi ci tane ki ci tane nee na mooy Amadou Ba nee na di la premier ministre na nag position boobu am na lu mu ko ci may. boobu mu am. am na lu ko ci am na lu mu ko ci yokkal. ba tax na. nee na ba tax na. ba ko waxee leader yi. nee na ba mu ko waxee leader yi. ñetti téeméeri leader. muy dina ñetti téeméeri leader. nee na ñoom ñëpp ñu àndandoo ni duñ ci teg baat. nee na message bi ñun ñëpp seetaan nañ ko mu Moustapha Niass moo ko liir. ndax neen da doon bëgg a tukki am jafe-jafe. ñëpp d'accord ne kon pour la coalition Benno Bokk. nee na ñëpp d'accord ni pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. benn candidat la ñu am. benn candidat la ñu am. kon keneen ku fi tudd candidature. nee kon keneen ku fi taxaw di tudd candidature. bokkoon ci parti te bokkoon ci parti bi. wala ci coalition wala nga bokkoon ci coalition bi. xamal ni génne nga ci sa xamal ni génne nga ci sa bopp te loolu day wane ni sa boppa la tax a jóg. te mënoo nekk ci mbir. nee na ndax mënoo nekk ci mbir. nekk ci kuréel. nekk ci kuréel. nangu ne candidat nga. nangu ni candidat nga. nangu ne ñu tànn di ko di nga ko nangu. nee na nga nangu ni ku ñu tànn da nga ko nangu topp ci moom. ñu bañ la tànn nga kon. nee na ñu bañ laa tànn nga ne bokkatuma kon loolu day wane ni sa bopp la ñor. loolu nag. nee loolu nag. militant yi laay wax ak militant. nee na militant yi ak militant yi yéen lay waxal. kenn ñëw fii di leen wax. nee na bu fi kenn ñëw. di leen wax am na beneen stratégie. am na beneen stratégie. budul bi mu wax. budul bi mu wax moom. nee na tànn benn candidat. muy candidat Benno. muy monsieur Amadou Ba. nee na ñu gunge ko jàppale ko nañ ko jàppale woon moom. pour ñu mën a gagné. nee na suñu gagné du monsieur Amadou Ba moo gagné de. nee na président Macky moo gagné. ndax moom tànneefam la. leaderu Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñoo na bu boobaa leaderu Benno Bokk Yaakaar yëpp ñoo gagné. ñoom ñëpp ñoo nangu tànneef ndax nee na ñoom ñëpp ñoo nangu tànneef boobu. ñoo ànd ci loolu. nee na ñoom ñëpp ñoo ànd ci loolu. kon nag kon nag. li ma leen di mu leen di ñaan. mooy ngeen fàtte jafe-jafe yi. nee na ngeen fàtte jafe-jafe yi. li nga xam ne defoon nañ leen ko muy lu nee na ñun ñëpp ñu àndandoo fàtte yi nga xam ni defoon nañ ko te mu metti. te ñu xool Sénégal nee na te ñu xool Sénégal. te xam ne bu ñu sàgganee. nee na te xam ne bu ñu sàgganee. dinañ ko dinañ ko réccu ndax réew mi dina dugg ci yeneeni loxo nee na loolu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na ci dégg di suñu wàll nee na taxawaat leen ci section yi xoolaat leen nit dem leen seeti nit ñi nee na leen ngeen dem jëli nit ñi seeti waat nit ñi nee na tàmbali leen ko ci parenage bi nee na élection mënoo ko gañe te demoo seeti nit ñi jëli leen nee na ndax nit ñi doo ngay wote jinne yi wote wuñu malaaka yi wote wuñu nee na kon ngeen seeti nit ñi waxtaan ak ñoom ñu dellu si nee na ñu wan leen fi réew toll ak taxawaay yi ñu ci war a am kon loolu daal ci gàttal. nee na loolu nag ci gàttal. mooy message moo di message bi mu indi woon. képp koo xam ne nag. da ci parti bi. képp koo xam ne nag da bokk ci biir parti bi. ne da ngay nekk candidat. ni da ngay nekk candidat. nee na xamal ni bokk ko ci parti bi da jël sa yoonu bopp ni ko xale yi waxee waaw. nee na nga assumé ko nag. nee na parce que. ay nit du ñu ànd ba fii. ay nit du ñu ànd ba fii. ba yëf ba di jeex. ku ne naan dafay ber bëgg a taxaw ni dañuy ber daalaam. nee na bëgg a def lu ko neex. kon nekk leen benn. nee na nañu nekk benn ñun ñëpp. te ñu gën a taxaw. bokk ndey gën a bokk. gën a bokk ndey gën a bokk baay. ngir ñu wuti ndam li. nee na ngir ñu wuti ndam li. nee na ñu jëlaat senegal téye ko mu mel ni président Macky Sall moo fi ne ba tey. nee na candidat yi ngeen may ñu s'il vous plaît président mooy wax. nee su delloo. nee na dina ko dajale moom ak leader yi. ñee na mu signé benn charte. nee na charte boo xam ne dañu ko tënk. nee na boo xam ne ñoom dañu koo tënk. mu jël engagement. mu jël engagement. respecté. respecté. programme bi ñu fi teg muy plan Sénégal. nee na ñu respecté programme bi ñu fi indi woon muy le plan Sénégal émergent. respecté parti bi. nee na ñu respecté parti bi muy APR. respecté coalition Benno Bokk Yaakaar. respecté coalition Benno Yaakaar. suuxat ko. nee na suuxat ko. téye ko téye ko bu dëgër. parce que liggéey bu am solo la. nee na ndax liggéey bu am solo la. liggéey fukki at ak ñaar. nee na kenn du ko bàyyi mu yàqu. nee na loolu. garanti yooyu bu ñu ko amee. garanti nag bu ñu ko amee. war na gëmm nag ci li des. nee war nañoo gëmm ci li ci des yëpp te du mooyu ko. te te nee na te taxaw rek target rek wuti ndam li. section yi. nee na section yi nañu ko dundalaat. dinañ leen gungewaat. dinañ leen gungewaat nañ leen daan gunge. xam am na yoo xam ne ay jàmbaar nee na xam na ni nag am na section yoo xam ne ñoom yàlla defal na ci ñoom ay jàmbaar lañu. nee na ñoom mës di gagné élection. nee na ci Amérique. am na section yoo xam ne tamit. wax dëgg yàlla. bëgg nañu waaye yàlla moo leen nattoo. mësuñoo gañe ñu perte. nee na nee na nee na te nee na te yàlla leen yàlla jàppale. déglu leen s'il vous plaît na yàlla na leen yàlla jàppale te yàlla xiir leen ñu nekk benn nee na ndax ñu am ndam